Euh, ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Guèye nekk ca euh, Sen TV am na daal jataay bu ñu ko invité woon wax na fa nag ay kàddu muy juróom fukki million yoo xam ni am na organes yu ko daan jot par mois ku ko daan joxe nag xëy na dañoo jàpp ne ka fi daan jógee la ñu ànd déglu loolu as lëf te dellusiwaat. mais li wóote noonu mooy. ñun xam nañ ne. gouvernement bii fi jógee. am na groupe de presse yoo xam ne chaque weer mu dugal leen cinquante millions. ci seen i compte bancaire. te mu nekk lu xool lu ma leer jibit te xam ko. Hmm. waaw dama ay tur mais waaw. am na ci groupe de presse xam ne chaque weer ñu dogal leen leen cinquante millions pour ñu régler yenn chargé chaque weer dama ne chaque weer. venant de venant du gouvernement bii fi jógee. ñu dogal leen leen cinquante millions. bokkut ak quotidien yi nga xamante ne. non seulement ils avaient des tirages gratuits au soleil. et en plus aussi. quotidien yi nga xamante ne chaque weer aussi ñu fay leen seen i location nangam ak nangam ba pare dugal leen cinq millions se i compte bancaire d'accord ci lu ma xam jibi hmm? waaw gis am na ñoo xam ne nee na tirage léegi euh, édition numérique la ñuy def gis nga loolu te loolu ko gën a illégal amul. Serigne Saliou Gueye la Baye Assane ñu ngi koy nuyu nag moom Serigne Saliou bu baax a baax a baax moo yëkkati yi la kàddu euh, daal bu doon nag benn la ñu ni benn mais dañuy lenn ci wala am na ci am na ci moom foo ko déggee benn ñaar ñett jàpp ñeent la. waaw doon na jot daal juróom fukki million ngir di mën a seen yenn charges yi waaw. waa am na solo sëriñ Saliou de bindul junjul dafa toog wax lu leer nañ mu ne am na si lu ko leer nañ ni eh, gouvernement bi fi nekkoon daanañ dugalal ñii nga xam ne yenn si groupe presse groupe de presse yi cinquante millions. Hmm. léegi nag loolu euh, damay xool ba xam ñoom day rees ak jàmm wala dañ koy goqi wala dañ koy topp wala wala daal wala it nañ leen ko doon dugalee lañ leen doon sant lan la woon. waaw ah, lañ leen doon dugalal. lu ko wutaleeg mission de secret yi. Hmm? voilà loolu lépp mën naa doon ci mission de secret bi sax mën na saa doon mais daal comme que si penc mi la ko waxee am na si ay preuve na dem wax leen yan télé la rek ñu leen laaj leen cinquante millions yi lan leen lan moo taxoon ñu leen koy dugalal bu ko defee ñoom bu ñu si indee ay leeral bu jaree ñoom ñu fayaat ko ñu fayaat ko bu ko ñu bàyyi leen ko hmm. waaw bu fekkee nag gouvernement bi moo leen ko doon jox pour ay publicité amul problème. bu dee gouvernement bi mën nañu ko doon jox pour ñu koy pro propagandaan amul problème bu dee gouvernement bi dinañ ko doon jox pour ñuy sëgg si yenn ñaawteef yi moo tax ñu leen ko jox ñoom it ña nga doon sëgg amul problème. Assane lépp amul problème. ah ginnaaw def nañ leen leen doon wax kay problème amu ci. amul problème ah, bu leen wane tàkk-tàkk yi bu leen wane doxu ñaxtu yi bu leen nangam bu leen nangam ñu ne ko kon kenn du ñu seetaan duñu am publicité dinaa leen jox cinquante millions xaw ma lu mu doon <laughs> en tout cas suñu saa ko wax te xam naa ne am nay preuve. joxe hélas. Euh, maa ngi dégg am kuy wax ni sax même euh, président Tiré da doon bëri. Mhm. léegi bareetul yu bari dañoo daanaka lafu ji nan. Mhm. nekkatuñ fi ñu euh, am ñun itamit mbaa du état moo doon Tiré yu baree bari waaw nee nañ ndax yu bari génnatul. les soleil xam naa moo daan tiireel moo daan tiireel gars yi mais lu demee ni ñii moom am nañ ay tiirekaay am na si yu bari yoo xam ne am nañu fu ñuy tiiree. ñan. waat RFM yi waa TFM ñoom dem dañ daan tiire bay tiireel ñenn ñi. ñi ah. amut ñamul fi ñu tiiree. ñan lañ daan tiireel. ku dem fay ñu tiireel la ñoom am nañ ko am nañ ay machines yoo xam ne day tiiree ñu ngi fi jam ñaajo machines yoo xam ne day yu bëri. am nañ am ko seen yëfi bopp xanaa nag duñu am seen yëfi bopp waaye ñi amutaan daal ñi amut fi ñu tiiree daal xam naa ne ñoom it nañ dem xool daal. Hmm. en tout cas réew mi moom. waa résidé nañ ngay xool sa caméra li ngay xool fii dafa lan la. yow laay xool. déedéet xoolal fii caméra bi. waaw kon nu may xamee ba yaa ngi dëggal li may wax wala yaa ngi. maa ngi koy dama waxal rek sama ma déglu rek. en tout moom dee ba déglu rek am nañ yaakaar ni. Mhm. dana baax. Mhm. Ah, am nañ si yaakaar bu baax. d'accord. Mhm. macha allah ak bari tappale wala man ko xoolee sa caméra maanaam yow laay xool. maanaam ñi ngay sëgg fii di xool lañ xamul looy xool. non yow xool Assane des fois day day def émission alaaj di def appel vidéo xam nga lool. <laughs> Assane day def émission di def appel vidéo. loolu doy na waaw. waaw alaaj. may def loolu. Hmm? noonu nga koy doxalee. man. waaw xanaa ku nekk màkka. makkatal mu karam ma wan kaaba ga kooku def na ko jël gis kaaba gi yaa ko jël yow koy def émission la ko xool kaaba gi kon waaye lu dul loolu du jël de Ndiogo noo déggee sëñ Saliou Guèye waaw sëñ de dafa wax loo xamante ni eh, nit ñu bari xam nañ ko xam nga xam nga gis nga gouvernement bi bi fi nekkoon liñ doon def ñuñ ko doon defal ah. ku ci jàpp ni yow dong yaa ko yëgoon ndax nga sa bopp dañ hmm. koy def ba noppi di ko yëgal ay nit maanaam dañ lay niinal léegi nag man jàpp naa ni hmm. li sëñ Saliou Gueye wax ni wax nañ ko fii defe naa ni ki wane ni presse bi moom ci kanam tuuti ñu bari danañ naax saay parce que musuñoo liggéey mhm. normal mhm. maanaam nekkul ni li ñuy génne ci lañuy dundee dafa am neneen noo xam ni noonu lañ doon dundee mais mhm. dunduñu ci seen liggéey nit ki nag bu fekkente ni bi li nga yore dundalu la comprendre nga ba noppi ngay continuer di exister moo waral façon bii ñuy doxalee dañoo defee ne bu ñu defee nii def pression nguur gi dina ne ah bu ma deful ndànk de sama nguur presse bi mën na maa yàqal teemaa jéem a def ak ñoom ni gars yi daan def ak ñoom te gis nga nguur gi hmm. dañoo yàgg entraîné fi mu toll dañuy football ci terrain bi lañ nekkoon di mise entraîné yii yëpp pression yëpp lu ñu leen waxut amut nguur gu mel nii moom dafay mës am koo xam Abdoulaye sax doon nañ ko wax hmm. Abdoulaye wax nañ ko lu ne comprendre nga hmm. mais bi mu jotee nguur gi Euh, dafa doyloowaat encore gars yi. Hmm. comprendre dégluwaat yenn yi affaire politique dugg ko mais amoon na lii Abdoulaye Wade amoon na lii Macky Sall nag moom bi mu ñëwee moom dafa ragal presse ragal leen lool lool ragal gi mu leen ragal nag hmm. moo waral muy doxale mu mu doxalee ni mu doxalee jël presse bi yëpp léegi nag def leen kiiwu boppam hmm. comprendre léegi nag loolu nga xamante ni bii tey euh, moo am ci jamono ji ñu nga xamante ni bii moom lañu nekk nii muy que ni euh, presse bi léegi waaye ja leen daan jox dara. dem na yoonam. léegi nag ñu ne nañ dal ci kaw gars yi pour def pression mais pression boobu mënul ne. parce que bu yee loolu lañ yaakaar toolu du fi amaat nañ jéem a góorgóorlu jéem a def ci seen xel yi liggéey ñaq jariñu nañ ko def ci seen xel yi. comprendre léegi nag. man dama jàpp ni sax Macky am na neneen loo xam ne moom la jublu ci yii yëpp mu doon mu doon def. Hmm. waaw xam nga fi mu toll nii tey gars yi bu ñu ji jaaree yëpp ay problème la yoo xam ne mais fa mu jógee man naa na nay jóge ci kaw di wàcc ci presse bi. waaw mais bu jógee ci suuf presse bi ñoom ñooy def kon combat bi presse bi fi mu toll am na ci ñu bari ñoo xam ni kombaa bi la ñuy combat xeex bi la xeex fi mu nii. ñoom presque ñoom fi doon dañuy xeex pour am dara waaye am na ci ñeneen ñoo xam ne patron yi moom euh, ñi ngi xeex pour loolu ñu leen war a kii. ñëw ne leen alal ji nangam jot ngeen ko maanaam presse sangam jot na nangam ci alal presse sangam depuis Abdoulaye mag saal nekk feeg léegi jot na nàngam xam nga yooyu kayit yooyu mën naa génn. Mm-hmm. comprendre comme si Saliou ko mën a xam. waaw sàkkaama la ak yi gis. ndax ñii ko ñii information. ma xam nañ lépp. parce que déggoo ay compte à banque loolu kañ lu ñuy tracé la loo xamante ni bi da nga koy gis mu ne ràññ ni léegi presse bu nekk mën nañ la fee limal ñaata la lekk comprendre nga mhm. kon gars yi bu fekkoonte bi dañu bëgg a xeex directement ak presse bi mhm. noonu la ñuy commencé def mais xeexuñu ak presse bi directement defuñu noonu waaw comprendre mais li ñuy def ñi ngi koy teg ci yoon parce mhm. tey jii bu fekkoon ne presse baa ngi jéem loolu mu ne nañ nañ leen génne li ñu am ci ñoom rek bu ko defee coow li jeex. si léegi tey buñ la fi limalee. buñ doon ni patron de presse yu bari ne la watuñ de parce que seen employé yëguñu woon xaalis bi ñu doon récupéré ji de. Mhm. yëguñu ko. te fi mu toll nii gis nga journaliste dana fi wut yat. topp mhm. patron. Mhm. moo tax patron de presse yi ku yóbbu wut ay garde corps. yu nañ dem recruter ji ay kii parce que. bés bu këy di ne bëcc. journaliste yi ay yat la ñuy wër di leen. Ah, wër affaire kay mi ngi commencé ne bëcc. parce que xam nga noonu xam nga li Ousmane Sonko wax na leen ko ci leen. waaw fisc bi maanaam li ñuy dagg seen salaire waaw moom la ñuy war a fayee. est-ce que loolu mooy ñoom li ñu waroon a fay. waaw li tax fay maanaam li nga xam ne moom la ñu waroon a fay. li ñu maanaam li ñu leen doon dagg xam nga wax nañu ko ba léegi journaliste yi xëmmi ko. waaw ba léegi ñu ngi nekk di xeexal naan way patron ñun dañ ñuy xeex. Hmm. léegi nag dañuy jékki-jékki ne leen patron diw sàngam ni ñuy waxee seen kii yooyu épinglé hmm. diggante nangam ba nangam hmm. état ngi doon verser nangam ci xaalis weer wu jot di ko ko verser ci compte diw waaw yaa ngi dégg bu boobaa nag diw moomu am na problème léegi nag du askan wi lay waxal de mais bu boobaa nag ay journalistes am ñooy wut yar di ko wër hmm. waaw parce non seulement presse bi ñu ci bari ay kii lañ. Mhm. businessman lañ rek nekkul ni dañoo gëm ay éthique ak déontologie ak yi lii ak laa ñi ko jàng non seulement nga xam ni ñoo gëm yooyu nekkuñu ci kaw léeg-léeg patron de presse yi dañuy jël ñi nga xamante ni bii ñoo gën a déggoog ñoom ci façon doxalin ñu jox leen yenn poste yi. su mhm. ko defee nu mu gàtt gàtt ñooy mën a xam yenn yi yeneen booy yi nekk fa naan éthique déontologie kërëb kërëb léeg-léeg nga ñëw sax indi loo xam ni ànd naa éthique ñu ne la ah non lii jàllu parce que kii lii lii. Mhm. comprendre nga bloqué yenn yeeg def kii. Mhm. donc nañ xaar tuuti rek lii ñuy coow yëpp dina mëpp ci seen kaw ñu am seen coow. comme xaaral tuuti rek nee na la am na ñoo xamante ni dañ leen di verser ay cinquante millions par mois. waaw presse écrite bi am na ñoo xamante ni ku jóg ku jóg wuti ki presse écrite. ku jóg ñu lay verser ay cinq million am na presse écrite boo xamante ni bi benn waaye bu yor bu saagam rek la moom mooy presse écrite bi. waaw waaw <laughs> waaw ah, ah, yor oto yi mag jekk oto yi yor ndaw. Hmm. <laughs> nga dëgg de. Ah, ñooñu dañoo bàyyi wax ah, ah ñu gëj a gis. même am na ñu daan envoyé seen i journal ci whatsapp di ko statut mais gëj naa ko gis de. Ah, waaw def na deux semaines bi statut tuñ ko. waaw tuñ ko par PDF. Mm, toxal la xool la am na ñu ko daan yónnee di ko statut par ma mais defatuñ ko de. léegi tey bàyyi leen rek noonu léegi tey ñi sérieux dinañ mën dinañ continuer mais ñi nga xamante ni bii moom Euh, dañ leen daan duut piqué mais nag journal yooyu nag dañ ko war a génn nag de maanaam laaj yi lu tax ñëwatul maanaam il faut ñu laaj yi dañ ko soxla ci penc mi na ñëwaat fu mu ne ndayaa loolu sab liggéey la journal yi nga daan lim dañ leen a xoqatal déedéet xo ku leen xoqatal Assane bal yàq der kenn hmm? xoqatalu ah loolu la ñu wax de gars yi dañ leen di xoqatal gouvernement bi dañ ñëw di leen xoqatal xoqatal mooy lan bul génnati xoqatal rek xoqatal presse bi luy xoqatal léegi damaa xam ñu Assane ni muy jabolise kan moo leen xooxatal nee nañ gouvernement bi asal bi mu diabolisé ma nga ko tàmbali ca ceeb ba bu mu demee ba indi ñaari saako naan mën nga ne jaay ma ci saako bee gouvernement bi démb fan lañ fi ba naan saako bi ak saako bee te nee nañ <laughs> <laughs> ci biir loolu sax am na lu ma ko envoyé loo xam ne gars yi am nañ numéro vert bi ma doon réclamé démb takk soo mm, am na waaw léegi da ma koy dencal Abdou Top ba ci fin bi dinañ ko ni daaj ji après ñu gis respecté wul boobu ko c'est confirmé que ni wala euh, non ki ma ko envoyé journaliste kii la ki ma ko envoyé ab la kii du ma xibaar bu du dëgg ñu ne nag lii ku ko ci respecté wul nee nañ bul xuloo bul xeex wooteel ci numéro vert boobu loolu daal lañ jëkk taxi bi xam naa bala ñoo jeexal euh, voilà defe naa lii est-ce que du gars yi waa ministère di commu du commerce et de consommation la voilà ñoom ñoo kii kon ñu ngi ciy ñëw léegi Abdou Top euh, kiyal ma ko ci kanam ñu ngi ciy ñëw ba ànd dogal borom bi